asalaamaaleykum euh, ñu ngi leen di présenter man la Sele Dieng président Homifa nekk ak euh, sëñ Mbacke Lo trésorier général bu Comifa nekk ak Ndeye Aram Niang secrétaire général bu Comifa ñoo ñëwoon tey fii ci SEDAF bu Mbacke di fi tàmbali tey sunu formation coopérative ak membre yi nga xam nii ñooy membre yi COMIFA COMIFA mooy coopérative des migrants et leurs familles muy coopérative boo xamee ni coopérative immigrants yi njëkk a taxaw fii ci Sénégal pour liggéey ak yépp immigré yoo xamante ne nii ñi ngi bitim réew wala ñëw nañ wala xalaat nañ seeni doom wala seeni mbokk kenn koo xamante li leen di dégtal mooy ouverture bi après lépp li nga xamante ni dana am durant ci biir formation bi danañ leen ko digtal fan yi ci des li ñu bëgg daal mooy ubbi buntu xale yi yi dem ci gaal yi ñu bañ a dem immigré yi fi nekk liggéey yuñ aussi mën a créer ay emploi ñi nga xam ne aussi xalaat nañoo dem ñu fexe ba duñu dem ña nekk fale aussi bëgg a ñëw ñu créer ay liggéey yoo xam ne ñoom danañ ci mën a jàppalante lëkkaloo pour liggéey bi gën a yaatu. formation bi trois jours lay am. maanaam tey la tàmbali ak suba ak gannaaw suba su ko defee ku ci nekk rek mën a xam lan mooy njariñu coopérative ak lan mooy njariñu développement ci biir coopérative joxe ay diplôme dernier jour bi dana am ay diplôme yu ñu joxe ñëpp ñi nga xamee ni ñëw nañ ci biir coopérative bi bokk ci formation bi pour ñu mën di forme ñeneen ñoo xam ne ni ay immigré lañ wax leen lépp li nga xam ne moom lañ doon ci biir immigré yi formation bi ñëpp immigré la góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo xam ne ni ñëpp ab immigré nga rek am nga droit bokk ci koo xam ni sa famille aussi immigré la am nga droit bokk ci koo xam ni sax xalaat nga pour am nga droit bokk ci kon ñëpp lañ ko yaatal mais dañ ko tënk ci immigré ak famille am gannaaw Mbàkke parce que fi lañ ko tàmbalee te dañoo bëgg mu wër Sénégal gépp parce que fi ñu toll boo ko seet saal bi aussi am na ñoo xam ne ni ñii Mbàkke leen dëkk ñii Touba. région Diourbel gi yëpp la mais am na ci ñoo xam ne ni jóge nañ ba région de Njambur muy Boori Njaañ ak ñoo xam ne ni jóge nañ fi ba Njaga Ñaaw ci région de Thiès muy jàpp département Louga ak ñi jóge Dakar aussi ñëpp wax dëgg yàlla yaatu na pour ñu lawal xam-xam pour ñu ñëpp xam ko te bu ñu jógee fii danañ créer yeneen post yoo xam ne nii ci yeneen côté lay nekk ci biir réew mi. formation bi nag ku bëgg bokk moom da ngay jaar ci comifa ñi ko gérer yaakaar naa ne après secrétaire bi dana la wax lépp ni muy doxee trésorier aussi dana la wax ni nga xam ne nii moom la nit di def pour mën a dugg ci comifa. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu Serigne Mbacke Lo trésorier général à travers coopérative comifa immigrants et leur famille ñun ñooy trésorier bi lépp loo xamante ni mooy jëm ci wàllu financement yi ak wàllu. li dugg ci coopérative li génn ci suñu loxo lay jaar ak suñu équipe loolu mooy suñ liggéey ci Comifa en même temps itam danañ ci former ay nit ñoo xam ne ci suñu man-manu bopp la ci li ñu jëlee ci expérience bi ñu jëlee ci bitti boole na ci bokk na ci suñu liggéey pour lépp yokk koom-koomu réew mi ak former xale yi ba nga xamante ne bii danañ gis seen bopp ci euh, li ñuy def fii ci biir réew mi bañ koo jëgaane fenn. Euh, Madame Day Aram Nyang, général de la coopérative des migrants et leurs familles. Je suis avec euh, le président de la coopérative, M. Sélédien, et le trésorier général, Serine Bakelo. Aujourd'hui, nous sommes venus ici dans le cadre au niveau du CEDAF de Mbaké, dans le cadre de la formation des membres des COMIFA en gestion financière et administrative des coopératives agricoles et d'habitat. Donc la coopérative a été créée au mois de juin 2018 euh, et actuellement elle regroupe plusieurs à travers le Sénégal. Cette formation a pour but de renforcer les membres de la coopérative pour une connaissance matière de coopérative et pour aussi comment gérer sur le plan financier, au niveau de leurs entreprises, les ressources qu'elles auront à gagner dans ce cadre-là. Euh, cette formation a été initiée par l'ARD de Djourbel, l'Agence régionale de développement de Djourbel, et a été appuyée par le GIZ à travers son projet Réussir au Sénégal. L'ARD est un partenaire privilégié avec la DRDR de Durbel, c'est-à-dire la direction euh, du développement rural, pour essayer de voir les Sénégalais de l'extérieur, les immigrés de retour, les immigrés qui sont les familles des immigrés et les potentiels candidats à l'immigration, qu'est-ce que la coopérative peut apporter en matière de formation, en matière euh, vraiment de réinsertion pour ceux qui sont retournés au Sénégal. Comment faire pour que ces gens puissent intégrer vraiment le tissu socio-économique du Sénégal Et dans ce cadre, euh, l'ARD, euh, qui est un partenaire privilégié, tout à l'heure, il y a le monsieur le directeur de l'ARD qui était venu euh, pour euh, l'ouverture euh, de la formation avec monsieur Bahoum, donc euh, le conseil technique du GIZ e en partenariat avec les membres de la COMIFA pour essayer de donner une nouvelle donne au niveau de la gestion des migrations. Parce qu'ici au Sénégal, on assiste à des associations de migrants, à des GIE des migrants, mais je pense que c'est une première fois au Sénégal euh, que nous assistons à des euh, immigrés qui se regroupent dans, selon divers, euh, divers horizons pour constituer une coopérative qui est un outil économique et social. Et la coopérative se donne pour objectif comment faire pour résoudre le problème des Sénégal de l'extérieur en matière de gestion, en matière de, euh, de réinsertion, pour que ces derniers puissent vraiment apporter leur expertise leur expérience et leurs compétences acquises à l'étranger. Je vous remercie.